war na ma ni Weuz moo dirigé mbir mi. alors ñu dalal oustaz Lamine Gueye oustaz ñu mu lay nuyu di la ziar am nañu mbégte retrouver la ce matin. waaw maa ngi lay delloo nuyoo ak euh, ziar man maa gën a am mbégte euh, ak kontaante ci dajewaat ak yéen ci émission bu tedd bi bu màgg bi di Allô Sénégal di leen nuyu waaye di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñu seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi nag di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah dalal ak jàmm tey waxtaan bi ci lan lay nekk. waaw xam nga comme euh, jeudi bële passé ñi ngi doon waxtaan ci wéetal yàlla ak njariñ yi mu am tey contraire bi la indi ak danger yi ci nekk mooy bokkaale ak yàlla ak danger yi ci nekk hmm. te dafa di loo xamante ne nag léegi defal tasaaroo tasaaroo tasaaroo nit ñi banaliser ko banaliser c'est pas quelque chose à banaliser c'est du sérieux tey soo ñu doon soo ñu doon wax lan mooy bokkaale ak yàlla lan lan la bokkaale ak yàlla daal mooy yàlla yàlla la waaye diwit yàlla la ah moo xam da nga ko danga ko da ko wax ci sa làmmiñ wala nga def ko ci sa comportement wala ci say jëfin wala ci say waxin gëm ne yàlla yàlla la mais jël beneen ndend nag teg ko à côté ne kooku it yàlla la loolu mooy bokkaale ak yàlla mm-hmm. loolu mooy bokkaale ak yàlla muy loo xamante ne nag lu lu lu garaaw a garaaw a garaaw la parce que yàlla subhaanahu wa taala fi mu waxee bàkkaar yi gën a rëy bu koy tudd ci alxuraanu karim bi mu njëkk a mooy al ishraaku billahi mooy bokkaale mooy bokkaale ak yàlla wa iz qaala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu yaa bunayya laa tushrik billahi inna shirka la dulmun azimun luqman al hakim luqman ñu bari dañ yaakaar ne yonent la mais du yonent hakim la woon maanaam boroom xel mu sell la woon bi mu demee bay ba mu ba nekk ci xar-xarle mu war ko ne moom mu génn àdduna dafa woo doomam ne ko sama doom maa ngi lay dénkaane di bàyyi ak loo xamante ne lu sérieux la loo xam ne lu capital la na ko bàyyi xel mooy bul bokkaale dara ak yàlla ndax bokkaale ak yàlla kat euh, tooñ yàlla goo xam ne gu rëy rëy rëy la soo ko soog caa teg nag yam cay teg nag wa wassayna al insaana bi waalidayhi xamalathu ummuhu waxnan ala waxnin wa fisaaluhu fi aameyni an ishkur li wa li waalidayka ilayal masiir ba aaya ja gudd fa ma nga ca suratu luqmaan yàlla ci boppam di wax nag naan inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baidan yàlla subhaanahu wa taala nee na dina jéggale bàkkaar yépp bàkkaar yépp nit mën na koo teer siwaale ci kanamam ci moom yërmandeem ak ñeewanteem yàlla mu jéggal la ko mais bokkaale ak yàlla ku ko ku ko dema ku ko demaale bàmmeel yàlla nee na boobu ko pardonné du ma ko pardonné képp ku bokkaale ak yàlla yàlla nee na réer na réer gu réer gu sore sore sore dëgg c'est-à-dire euh, jot duñ ko may mais boo defoon istinbaat maanaam nga topp rek aaya yi nga xamante ne yàlla dafa ciy wax yi bàkkaar yi gën a rëy wala yonent bi di ci wax bàkkaar yi gën a ci xadiis yonent bi sallallahu da ngay fekk ne à chaque balaa muy wax dara rek bokkaale ak yàlla dañ njëkk a wax Oustaz bokkaale est-ce que euh, sant ku dul yàlla par hmm. exemple. Hmm. loolu bokkaale la. xam nga yàlla dafa wax ne. abdi laa yashkuru ni ida lam yashkur alladi ajraytu ad ni'mata bayna yadayhi yàlla nee na sama jaam bi bu ma ko defalee xéewal mu sant ma tëb ki nga xamante ne xéewal gi ci loxoom laa ko jaarale santul kooku yàlla nee santam googu safu yàlla daf ko considère comme ingratitude nee na na nga sant fi nga xamante ne xéewal gi ci loxoom laa ko jaarale mm-hmm. léegi nag kon am na ñaari cant yu taxaw sa kanam mooy sant yàlla samp sant fi xéewal bi jaar nit ki ki léegi nag naka la ñuy sante yàlla ak naka lañuy ñuy sante borom xéewal gi ki nga xamante ne xéewal gi ci loxoom la ko yàlla yàlla jaarale kooku boo koy sant dafa na nekk a fekk muy dund dana fekk mu teew Kajoor Cissé moo defal oustaz Lamine Gueye xéewal mm-hmm. Lamine Gueye ñëw ba ci Kajoor Cissé jox ko loxo ne ko jërëjëf. maa ngi lay sant. maa ngi lay sant di la gërëm kontaan naa torop wéet ci sa ruq nag te ne alhamdulilahi rabbil alamin sant boobu yàlla moo ko moom waaye wéet ci ruq naan jër jëf Kajoor jërëjëf Kajoor maa ngi sant Kajoor ko yaa ngi bokkaale ak yàlla sant gi nga xamante ne koy def ci en retrait maanaam du mel ne ko am koy waxal takka ngay waxal nekku fi booba yaa ngi bokkaale ak yàlla kenn ku ci ne dafa am na koy sante kii nga xamante ne mooy nit ki xéewal gi jaar ci moom da ngay dem ba ci moom nga jox ko loxo ne ko jëf sañ nga aussi taxaw ci mbooloo ne diw day defal na ma nàngam diw day defal na ma nàngam maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi leen koy séddaloo yéen mbooloo ba tey cant gi la mais wéet ci sa ko nag naan jërëjëf yow jërëjëf yow jërëjëf yow foofu nag moom cant googu moom yàlla moo ko moom boo ko joxee keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala yaa ak yàlla yaa ak bi ak samay ñaari waajur soog a am lu mu ci teg loolu bokkaale la loolu mooy jëmmi bokkaale ginnaaw yàlla ak yónnent bi ah ak sama ndey ak sama baay sama sama ñaari waajur woy la si mbër yi de ak sama ak sama sëriñ loolu nag mooy jëmmi ishraaku billaahi nag mooy jëmmi jëmmi bokkaale ak yàlla nag parce que yàlla kenn du ko associé ak dara yàlla dafa wax ne ana aghna shuraka an sharikin fa man amila amalan ashrakani fiihi ghayri taraktuhu wa sharikihi yàlla nee na ñi ñuy asso associé yëpp maa ci gën gaaw a gedd maa ci gën a doylu képp ku jëf benn jëf wala nga yëkkati ak cant wala yu ni demee boole ma ko man ak keneen wala ak jaamu boole ma ko man ak keneen na la wóor ne koo loola moo fa des man génn naa man génn naa léegi-léegi nag da ngay dégg Sénégal ñaan ah, maa ngi sant yàlla di sant yonent bi di sant sama sëriñ di sant sama ndey ak sama baay santal yàlla rek santal yàlla rek sa ndey ak sa baay boo toogee ak ñoom nga gërëm leen te nga comporté woo ak ñoom ni doom di comporté woo ak wayjur sa sëriñ boo toogee ak moom sant ko maa ngi lay sant di la gërëm sëriñ ci li nga xamante ne defal nga ma ko mais kantaan nag xéewal goo xamante ne yàlla daf la ko defal nga naan sant nga ci yàlla sant xéewal gi yàlla moo ko def. oustaz nag lii ngay waxtaanee nii ñun loolu suñu yëf la ça fait partie de notre. Oui. notre quotidien chaque jour loolu la def. te ah. baaxul léegi nag xam ni baaxul nga di ko def. Hmm. loolu nag lan la si diine wax. Ah, la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxasirin yàlla subhaanahu wa taala nee na boo ma bokkaalee ak leneen. lépp loo xamante ne jëfoon nga ko ci lu baax faf naa ko faf naa ko détruire ndax bokkaale boobu nga xam ne defar def nga ma ko waaw yàlla nee na boo ko lépp loo defoon ci lu baax lépp loo defoon ci lu baax boo yàlla nee na boo bokkaale ak yàlla ma ma ma yàqu ko pourquoi parce que yàlla leen rek la soxla yàlla dafa yónni cent vingt quatre mille prophètes téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent ki ci mujj mooy ci yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam ki ci ki clôturé yëf yi mooy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp yàlla jox leen ay livre ñu leen ci ay xeet ak ay nation ak ay génération pour benn objectif rek nee objectif bi mooy lan. mooy pour ñu ne ko yàlla yow a seul. pour ñu ne ko yàlla yow sant yàlla ci ci ngistal. Hmm. loolu loolu loolu aussi lan lan lan la ci. lépp lu nit ki di def ci ngistal. loolu loolu loolu yàlla subhaanahu wa loolu ak bokkaale la xam nga lan mooy bokkaale mooy jëf ji bi nga koy jëf da nga koo yàlla mais yaa ngi ci laawaale keneen ba ci julli nit mën na ci nit mën na ci bokkaale ak yàlla mm-hmm. mooy boo ñëwee taxaw jàpp ba sell lal sa sijaada allahu akbar ci kanamu nit ñi devant les nit ñeneen ñi di wokkante billaay way dégg oustaz bi alquran bi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin di tari mu neex allahu akbar waaw ah, mais oustaz nit ñi naan la bokk di nit ñi waaw mais mais na nga ko la yàlla na nga ko na mbir bi na ko yàlla moom mais comme tu le fais devant les gens devant les gens pour que les gens le disent yàlla subhaanahu wa taala nee na bu ëllëgee boo ñëwee ya xam nga nag moom yàlla dafa maandu wa man yaamal misqaala zaratin xayran yara wa man yaamal misqaala zaratin charran yara nee na lu waay def ci lu baax ak lu waay def ci safaan boo ñëwee fii ci àllaaxira di nga ci teg si nga ko gis di nga ko gis la wax de waxul di nga ko jël de yara yarahu la wax waxul yaaxuduhu de dina la indi bañala sa julli gi nga doon def ak sa xaalis yi nga doon maye publiquement ak sa yëf màkk yi nga doon dem te mu ngi nii nga jàkkaarloo ak tiyaaba nga bëgg koo jël mu ne déet man taxuma woon ah. ba nga koy def man taxuma woon danga ko defoon pour nit ñi wax ko nit ñi wax nañu ko jeex voilà ta récompense da nga ko defoon pour nit ñi gis ko da nga doon julli ci kanam pour ñu ne billaay imam Lamine géey moo moo ragal yàlla billaay moo rafet nu muy jullee moo neex alxuraan ils l'ont déjà dit. foofu da ngay perte. da ngay perte. Hmm. ma ngoog yàlla di waat yàlla di wax sax ci alxuraan karim a'uzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim ara ayta allazi yukazibu biddiini fa dalika allazi yaduxu alyatima wala yaxudu ala taami almiskini fa waylun lilmusallin alladina hum an salatihim saahuun alladina hum yuraauuna wa yamnauna almaaun yàlla subhaanahu wa taala naan seetal ma rek ki nga xamante ne dafa weddi diine ne diine du dëgg hmm. yàlla ne seetal ma seetal ma boobu façon nit rek ak dof boobu rek xoolal ma kooku rek xoolub waaru parce que ki ne gëm ki gën a gëmut yàlla gëmut yonent bi ca dëgg-dëgg dof foofu la yem wa dalika allazi yadul yatim ak ki nga xamante ne dafay bëmëx jirim bi ñoo ne sama papa dafa dem ay toppal fële waay yàlla ne kii rek et pourtant il a des petits il a il a des moom bakkenam mi ngi ci xottu nen mën naa ko jël léegi doomam nekk ci même situation bi ko mu ne xoolal dof bi rek hmm. wala yaxuddu ala taamil miskini bu miskin bi ne saarax añ ma ngay tibb te di ñaak moom ci ceeb bu tàng be dagg suppa be jeg jën njëkk yi waaye defal ma fi tuuti xooñ eh, eh sarax ba yegg na sarax ba yegg na sarax ba yegg na te yaa ngi añ sa yoon ci miskin bu xiif ak miskin bu xiiful sa yoon ci dëkkandoo bu lekk ak dëkkandoo bu lekk yàlla ne seetal ma kii rek mm. et pourtant maa ko ko xéewalal li ma ko xéewalal ëpp na ko moo na see ñaak jox kale mu waylun lii na yàlla nee na xur ca sawara xur la woo xamante ne wax nañu ne waylun xur la woo xam ne bu ko yàlla ubbee le reste de l'enfer day yuuxu naan yàlla tëjaatal bunti waylun yi mbugalam mi mi ngi ñuy lor yàlla nañu yàlla musal ci yàlla nañu yàlla musal ci waylun yàlla ne xur woowu maa ngi ko réservé lil na pour les gens qui prient bu yemoon foofu kon ñun ñëpp dootuma dootoo dem église man dootuma dem te jumaa ja bu yemoon foofu rek hmm. kon ñu bàyyi julli waaye alladina hum an salaatihim saahuuna ñi nga xamante ne seen julli dañ ko sàggane di ko defee di n'importe comment du ñu jàpp du ñu sellal du ñu teewlu ah, nu mu leen heure bu leen neex lañ koy def heure bu leen neexee def heure bu leen neexee bàyyi mooy allaziina hum an salaatim saahuuna ak ñeen allaziina hum yuraa'uuna ak ñi nga xamante ne dañ koy def di ko ngistaloo. wa yamna'uuna al-maa'uuna wa yamna'uuna al-maa'uuna ak nag di di xañe jëfandiku jëfandikukaay yi. Mm. al-maa'uuna nag ñett la ndox la ak safara ak weñ. sa dëkkandoo bi euh, madame Camara. Euh, ku ku cuunwaaram damm na. Mhm. waaye ceebam bi mi ngi waaj rek léegi ñu leen antenne bi mi ngi waaj a xëm. Mhm. mu daal di ay sa dimbale ma nga abal ma sa kuddu cu dimbale ma nga abal ma sa fourne bi dimbale ma nga abal ma sa gaz bi nga ne ko kuddu cu gi kilewul nekku fi te fekk mi ngi fi. Oustaz tegal foofu solo <laughs> lii am na solo jeudi prochain ñu àggale ko ndax nag dañoo war a dem flash d'information macha allah waxtaan wi am na solo. Mm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bàyyi la nga tàggatoo rapidement. waaw euh, comme ni nga ko waxee rek. Ah. incha allah gis nga lii dafa dafa yaatu. géej la ba nga xamante ne incha allah xam naa ne. est-ce que duñ ci dellu si waat euh, jeudi prochain gën ko yaatal parce que bokkaale gi dafa ne job bay fi ñu toll yàlla moomoon yëpp jox nañu ko ay jaamam hmm. À lundi. Merci beaucoup la régie merci beaucoup et désolé on vous donne euh, on vous remet l'antenne justement léegi-léegi ngeen am seen flash d'information juste après ngeen ànd ak Sista Maria ak Bira dans la mi l l'avant-première quant à nous nous vous donnons rendez-vous à demain inchallah